seeti la. waaw ñu seeti monsieur Macky Sall. Macky Sall Macky Sall. ci fin d'année bi fin d'année bi waaw. ayca abal ko lan lan lay wax nation bi. abal ko ay verre. maa ngi leen di nuyu waaw. monsieur président ñu ngi lay nuyu di la dalal. plateau. waaw jox sa wàccuwaay di la ndokkeel ci at mi. ah di wax ni 2020 dem 2021 bi ngi ñëw lan ngay wax ci at 2020 lan ngay bi tey. maa ngi xamal waa Sénégal que semaine bii di ñëw ci deux bi janvier bi beneen Macky Sall ngeen di gis bu bokk ak Macky Sall bi ngeen xamoon. Mm-hmm. dugg naa fi oto di dawal am na lañ ko interprété loolu mooy premier avant-goût bi incha allah semaine bi di ñëw danaa doon taximan danaa doon chauffeur clando mm-hmm. danaa doon charretier. danaa doon maan pour xool ñi nga xam ne ñoo tuur mbarit buuj bujal yi lu tax ñu koy buuj bujal ba muy xeeñ ci biir dëkk bi. di président. danaa dugg ba ci baar yi baar baarmaan parce que am na ñu xam ne dañuy rax sangara si di ko dugal ci dëkk bi ba xale yi di ko màcc di ko naan di ànd ak faramata ba ndax ali pënd te loolu dafa nekk loo xam ne c'est pas normal tàngal yi nga xam ne dafa am sàngara duggu ci dëkk bi c'est pas normal. loo xam ne cukalu mag antal la ko na ko gune mën a antal ne soo ko naa ne tàggoog sa farmata ba ndax ale penda te si suuf du rafet ci kaw la yanja nga bëgg a jël xale bi ëlbati xale mu daal dëpp ñi nga xam ne ñoo commercialisé tàngal boobu danaa dal seen kaw dana nekk bitik nag ci biir koñ xool ñan xale yi dañ leen di yónni pour tàngal yi war a mag ñi ñoo soxla tàngal yi parce que tàngal yi war nañ ma ko dafa nga koy màcc ba ci dëgg bi sàngara bi na pacax dal sa lamine nga ànd ak farmata ba ndax da kan ngay wax dakoo match yow da nga dof rek dina dala jàpp. tu sais tu parles avec un c'est la réplique. non non je te dis que je. li nga expliqué non je de respect. excuse-moi monsieur le ma leen di xamal ñaar. que dinaa nekk ngacc katu foos pour xool foos yi kan moo ciy dugal mbuusi danaa dem ci télé yi tamit jéem fa nekk caméraman pour xool. ndax xaalis bi nga xam ne joxoon nañ ko télé yi jotoon nañ ko am dëkk parce que joxoon naa xaalis bu bëri subvention pour télé yi. ah bon ndax séddale nañ ko woon séddale yëpp dinaa ko la danaa nekk tamit loo xam ne ci biir juma yi di noddu xam naa danaa naqari moom waaye dina ko jéem <laughs> xam nga lu tax parce que pour xool il paraît que Sonko dafa nekk ci jàkkee di waaraate léegi te dinaa fexe bu nekk waaraate kat. maa ngi ñaan oustaz si ñu jéem a jàngal sóoratun yooyu nga xam ne ay sóoratun la te Idrissa Seck suma xarit Sow mu ngi waxtaan ak man ci loolu. Ah, jéem a jàngal na ma sóoratun naasi. naasi waaw ñu ngi ciy avancé yow ñu ngi ciy jël a. waaw tari baxoon yow ci ban télé nga nekk. TFM man dama sama non TFM bu commencé à déborder. Ah. fay leen seen bor ba pare sinon minute naa leen coupé. mais jàkkee kay balaa nga de. TFM. yéen la Walfadjri yéen ama ngeen cent soixante quinze millions non dama fayu leen wal fajiri fayul Bougane amal na un milliard huit cent cinquante millions. un milliard moom mi ngi tey dama la ne kapit dagg la. mais mais Youssou moom mi ngi fay tey moom mi ngi fay xamoon ndax mu ngi fay war a fayul. xamoon mu ngi fay war a fayul wax naa ko mu xool sama yoon nekku si xaalis xaalis la liggéey liggéey la. waaw tey nag na doon tëgg soirée affaire dinaa fa jaar sax ko. soirée ba wala grand bal. soirée si bi waaw mais xam nga. def fa lenn def fa lan. Eh, léeg booy bu réew nga la parce que xam nga ki nga xam saay saay <laughs> xam nga des fois nga def affaire bandi <laughs> ok.